nekkatul li nga xam ne moo di euh, président bu li nga xam ne moo di euh, d'instruction euh, bu li na xam ne moo di grande instance bu Dakar jëlee nañ ko fa yóbbu nañ ko foofu sa diwaanu li nga xam ne moo di Tambacounda léegi fa la daal di nekk ni exactement ki nga xam ne moo di Omar Maham Diallo.

Euh, léegi ex juge d'instruction bu Dakar lañ koy daal tuddé exactement léegi yobou nañ ko fofu si diwanou li nga xam nekk moo di Tambacounda euh, mu nek lo xamni ni itam ki nga xamné nekk modi le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay def nako mom ki nga xamné nekk modi Omar Maham Diallo ñu daal di wéyal ba tey nomination bokk na ci Abdourahmane Diallo mu nekkoon président bu tribunal bu grande instance bu Cheikh léegi fal nañ ko mu léegi mom moy président bu chambre à la cour d'appel appel de Tambacounda bokk na ci si ki nga xamné nekk modi Elage Issa Ndiaye mu nekkoon juge bu tribunal bu grande instance euh, en classe de Dakar léegi moom mooy li nga xam que di conseiller à la cour d'appel bu Tambacounda Abdou Karim Diop mu nekkoon euh, procureur de la République euh, bu li nga xam que moo di hors d'instance en classe bu Dakar léegi nag Abdou Karim Diop fonction bu yes tàq ginnaaw bu mu daal di jugee si li nga xam procureur bu Dakar Bassirou Diomaye Diakhar Faye yóbbu na ko foofu si daanu ko Tambacounda dénk ko mu nekk avocat général près beaucoup cour d'appel bu Tambacounda donc Abdou Karim Diop nag léegi mi ngi foofu si diwaanu Tambacounda euh, fa la ko Jomay Diakhar Fay daal di exactement alors euh, chambre bi euh, bu cour d'appel bu Tambacounda Maham Diallo moo koy gérer moom président bu chambre bi Abdou Karim Diop avocat général bu cour d'appel bu Tambacounda ah Abdou Karim <laughs> sori alors donc mi ngi de si n'a li nga xamne nekk Tambacounda nos comment on vous laisse justement dans les commentaires donc voilà li nga xamné que di euh, euh, la nouvelle destination bu ki nga xamné que mu di euh, Abdou Karim Diop donc ki nga xamné que mu di le président Bassirou Diomaye Diakhar Fay yobunako fof ko foofu si li nga xamné que mu di Tambacounda mon Abdou Karim Diop légui mom moy avocat général bu cour d'appel bu Tambacounda. ñu daal di yegg si ki nga xam que Modi di Mamadou Seck Mamadou Seck aussi xamoon ngeen ko franchement mooy amul yaakaar d'après les détenus politiques ku ñëw. dalay daal di jàllale exactement boole si mënuma si dara Pape Alé Niang jaaroon na fa ak aussi ñoom Mathi Sarr Niang et consort Mamadou Seck moom mu juge du tribunal de grande instance au classe de Dakar jamono ji nag léegi nommé nañ ko léegi avocat général la foofu si diwaanu ko cour d'appel Tamba Kunda. donc mu nañ qui ni ki nga xam que moo di Diomaye ñoom ñëpp la daal di jërëndoo sànni leen foofu si diwaanu ko wala kon euh, affecté leen foofu si diwaanu Tambacounda muy Maham Diallo jëlee nañ ko Dakar léegi mi ngi si Tamba euh, Abdou Karim Diop aussi jëlee nañ ko euh, Dakar léegi mi ngi foofu Tamba le juge Mamadou Seck amul yaakaar aussi jëlee nañ ko foofu si diwaanu Dakar léegi mi ngi foofu si diwaanu li nga xam ne que moo di Tambacounda le juge Mamadou sec moom mooy fay li nga xam ne que moo justement avocat général. Euh, près euh, bu li nga xam nekk moo euh, la cour d'appel bu Tamba Kunda donc Ali kooku nekk Mourou Seck <laughs> juge Mourou Seck exactement donc mi ngi noonu ñoom ngi Tamba jamono ji nak mu nek ay changement de taille yi nga xam ni le président Bassirou Diomaye Diakhar fay opéré nako ginaaw ginnaaw lu ni mel ni daal jàll si ki nga xam nekk moo Moussa Deye mu nekkoon juge bu tribunal bu grande instance bu Kaolack jamono ji nak léegi moom mooy juge bu tribunal bu grande instance bu Kédougou Bernard Diomba Faye mu nekkoon ci bu procureur euh, de la république euh, fofu se diwaanu ko li nga xam nekk modi di grande instance bu ties léegi nak mom mi ngi foofu sa diwaanu ko euh, li nga xam nekk modi euh léegi moom mooy procureur de la république bu grande instance bu Kédougou donc Modou Seck mi ngi non mi ngi foofu si diwaanu li nga xam nekk moo di Tambacounda ci itam si ki nga xam nekk modi di Aliou Faye mom mu nek li nga xam nekk mu nekkoon président bu d'instance bu bambay léegi moom mooy juge bu tribunal bu grande instance bu Tambacounda ay kenn itam bokk na si ki na xam ne moo di euh, Ibrahima Sidibé mu nekkoon juge bu tribunal d'instance au classe bu Dakar léegi moom mooy président bu euh, d'instance bu Bakel Omar du Diaw moom mu nekkoon juge bu tribunal bu grande instance bu Pikine léegi moom mooy le président bu tribunal grande instance bu euh, Saraya Euh, suñu daal di jógee foofu si diwaanug li nga xam nekk moo di Tambacounda léegi nii daal di jaar foofu si diwaanug Ziguinchor euh, ki nga xam nekk moo di Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye aussi am neen fa ay changement de taille bokk na si Hippolyte euh,